بني جولي صلاة التصبيح موي بريسيزمان سبحان الله ينشي دف والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله موتاخ ني تودي كو نون امنا يينن ناك يو خامتيني بوكو ديغي رك ديغا خام بان جولي لا باسكو بو ني ني جولي صلاة الاستسقاء امنا موي جولي باو نان امنا صلاة الخوف امنا صلاة المريض امنا صلاة الغائب امنا صلاة no mu tuddati at tawba waaye salaatu aljumaa am na salaatu nga xamne moy zuhur ak asr ak maghrib ak isha yooya ben bu ne amna tour tur mom li tax mu nek salatu tasbih moy li nga xamanteni subhanallahi wa bihamdihi biñ ci def wala subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illa ta nombre bi di 30 moo tax dina am li yëpp di am mais moom dafa am particularité ci sàbbal suñu borom moo tax ñu ju ñu tuddee ko jullik sàbbal ki ko taxawaloon d'abord mooy Hadji Ibrahim borom pas-pas bu rëy ba nga xam ne kenn dootu ko laajati ci réew mi suñu place heure bi ngeen taxaw fii ci naaj bi bu ngeen réfléchir un peu mémoire yi war a xam ne cinquante sept ak heure bi biñ fay toog booba metti na booba la fa fekkoon ay ay golo fekkoon na fi ay bukki fekkoon na fi ay jinne waaye xeex ak ñoom ba mujjeen fi ne te sax muy entre parenthèse boo xam ne dañ koy ubbi pour xamalaale sa téléspectateur ne palaas bi moom ak julli gi yàgg na fi lool julli gi doog a ñëw ndax cinquante sept la fi ñëw waaye julli gi nag mu ngi njëkk a am en 1970 mu julli ko ak ñun vingt-quatre fois dem bàyyi ñu ak ay rakkam waaye bàyyi ñu ak xalifa bii ak i rakkam ba tey ren ji ñu war a def trentième anniversaire wala édition nga xamante ni moo ñu jox cinquante quatre aujourd'hui macha allah waaw ci ndimbalu préfet ak euh, équipe bi bu mag bi mu àndal ñi nga xam ne ñoo ne seen ginnaaw wane nañu détermination boo xamante ni am nañ ko ci ci ci ci ci bés bi tabaarakallaahu am na ay doléance yu bëree bëri yoo xam ne xalaatoon nañ ko waxoon ko gis nañu yi ci bëree bëri à soixante dix quatre vingt pour cent moom c'est déjà réalisé yi ci des nag ñu ngi koy xaar incha allah